عندي اسما ومصدرا ويا أحمد الهادي إلى خير ملة وناصر دين الله بالحق بالورى ويا مجمع الأوصاف والله جملة علوت لسر في جمالك مضمرا يا رسول الله يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان معنا ومظهرا يا رسول الله يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان معنا ومظهرا فكنت حبيبا والعوالم لم تكن وكنت مرادا للإله مكبرا كما كنت في محراب قدسك ساجدا تراقب كل الذات عنها معبرا بنورك كان الكون فضلا ورحمة بحكم مراد الله طوبى لمن درى يا رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم en bala ñu dugg ci programme bi dañuy ànd ak yéen jàng suratul fatiha ala ruuxi shahid الرئيس الشرعي الدكتور السيد محمد المرسي سيد محمد مرسي رحمة الله عليه ñu ànd ñun ñëpp jàng suratul fatiha yéene ko président Morsi bi nga xam ni démb la ko yàlla jëlee ci jëng ak ci tooñu dictature ba nekk ca Égypte war sëgal ko shahada dexe ñu ànd ak Sidi Mahmoud alxusari rahmatullahi alayhi jàng suratul fatiha sooga dellu si biidnillahi taala
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
amiin ya rabbal alamin ñaan ci barke suratul fatihati sama borom tabaraka wa taala jéggal ko te yéeram ko nangu ko ci shuhadaawum bi am nañ ci yaakaar bu baax lu góor di taxawee rek pour réewam jag taxawee na ko bokkoon na ci ñi yàlla wërsëgale ñu teel a wëttu alquran jàng ca Qahira ba am diplôme bachelor ak master soo ko ñëw fii ci America defati fi master ak doctorat waaye liggéeyal réewam ak diine tax gannaaw ay at yu mu jàngalee fii mu bàyyi fi prestige yi fi nekk yépp dem bokk ci liggéey ba na ma ca bokke woon lu jiitu muy dikk fi ba yàlla def gannaaw jaar-jaar yi mu jaar yépp ci biir jamaatul ixwaanil muslimin ci biir champ politique gu Masr tëj ko kaso ay yoon boo dem ci parlement ba di fa taxawu dëgg bokk ci ñi jiite woon front boobu doon xeex ngir taxawal pexe yi Israël nekkee ak caay-caay gi ñu nekkee te ànd ceeg lenn kilifa wala kilifa yu bari ci àdduna bi sax boobu nekkagul sax président yàlla def muy le premier président démocratiquement élu en Égypte depuis Égypte et Égypte depuis depuis l'histoire euh, bu antiquité de l'Égypte moom mooy le seul président bu histoire wane ne nit yee ko fal ci seen coobare ay saay-saay Occident jiitu ci ak lenn dëkk yuy booy seen bopp dëkk jullit nekk ca ginnaaw di fexe ba indi Abdul Fattah Assisi ak confiance bi Mursi amoon ci moom mu wor ko ndax alal lu àdduna ak turu ak palu àdduna tëj ko ba noppi rey ko te rey gu rey gu yéex dalee ci négligence ci wàllu wéram ak ci doyadal ak ci gis ngeen rek vidéo wala audio bi ñu mujj enregistré xaaral ma bàyyi leen ngeen déglu ci tuuti lii lañu mujj am ci kàddoom muy wax ak xaadi bi di ci wane ne ay weer a ngi xamul fu mu nekk déggul défense am mënta wax ak avocat am xamul li xew di ci wane yi tamit mbóot yi mu xam te mën naa am su ko waxoon sax ñu génn waaye bëgg réewam tax na di leen dànkaafu ci wàllu wéram ak yoon yi mu pass out yépp nga xam ne lu nekk jëfandikoo nañ ko ci wàllu yi xew bees pour rey ko rey goo xam ne dafay durer ay at ba bi muy am juróom-benni at ci kaso gi ci la ñu yeggali la ñu yéene woon yal na leen yàlla jox la ñu yeeyoo.
أنا منذ 24 9 حتى هذا اليوم الآن معزول تماما عن المحكمة وعن الطاعة وملك الطاعة. فهناك حادث دجاجي المحكمة لا تراه داخل القفص مزدوج. حاولت ان اتكلم الى المحكمه بخصوص مشاكل كثيره في القضيه وليس بعيدا عنها قبل ذلك ولكن المحكمه لم تراني ولم تسمعني. انا متاكد علميا اذا كنت انا لا ارى المحكمه فالمحكمه لا تراني.
أنا متأكد تماما إذا كنت لا أرى المحكمة فالمحكمة لا تراني والله محكمة bi gisut la waaye sama borom gis na rey nañ ko ci tooñ waaye xañ ko lu nga xam ne kuy dund am nga sañ-sañu fa nga bëgg ñu suul la ak na sa mbokk yi bëggee ñu suul leen ñu suul la ñu suulee la ko boo fi jóge ñu xañ ko loolu en tant que doomu aadama waaye en tant que président bu jiiteem réew am loo xam ne ak luuti am ndax ci jamono Hosni Mubarak président dee na fa te fekk mi ngi nekk ci résidence surveillée mais dañ ko jofal marasim yi war yëpp pour un président yooyu yëpp nag ñu def ko suul ko suul goo xam ne suulu secret la àdduna yëpp te Occident jiitu ci ndax na fekk noppi ci waaye sama borom gëmmut nelawut ñu ngi koy ñaan mu teeru ko ci aljannaam yi gën a kawe te jëflante tooñkat yi jëflante ba yell ci ñoom ñaan yàlla mu dëñal njiit ak lenge yilif jaam yi yal na yàlla dëñal ko ci loxo tooñkat yi te teg ko ci loxo ñi nga xam ne ñu ragal borom bi lañ ci biir ragal borom bi ci biti yal na yàlla dindi tooñ ci àdduna bi te defaral àdduna zahir defaral àdduna baatin ba ñun ñëpp ñu dund niñ bëggee te mu dëppook ni yàlla bëggee ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama xam naa fiyeeg ay instant ñu dellu si waat bi iznillahi tabaraka wa taala ci bind bi incha allah
bismillahi irrahmani irrahim mbokk yu tedd yi déglu ICFA rajo fii ci WPAT 930 AM di ñu déglu itam ci suñu website icfaonline.com icfaonline.com wala ci 616 597 10 30 616 597 10 30 24/7 24 heures sur 24 loolu nag bu mënee am gannaaw ndimbalu yàlla mbootaay gii di Islamic Cultural Foundation of America di jàkka yii di masjidul muhajirin wal ansar fii ci Staten Island ci 740 Delafield Avenue Staten Island New York 10310 moo tax mu mën a am jàkka ji nag service yu bari lañ fi jagleel julliti àdduna rawatina julliti Amérique rawatina julliti New York five daily prayers muy julli juróom juma ak service ya ca topp vikar si àjjuma weekend programme su pour xale yi ak after school programme bu ñuy mën a defee seen homework di jàng tamit alquran arab ak islamic studies ànd ak lectures yu bëree bëri yu ngeen mën a bénéficier ci mbootaay gii di Islamic Cultural Foundation of America moo xam ngeen nekk sur place wala ngeen nekk à distance à travers la radio wala suñu chaîne télévision bi ci youtube bi ñuy ñaan ñëpp ñu subscribe maanaam abonné ci ngir mën a bénéficier ci lectures ak xutba yiñ fay dugal yépp dem leen youtube point com ngeen search ICFA TV ICFA TV ngeen mën a am lépp loo xam ne luy jóge ci mbootaay gi la te ànd ak njëriñ yii nag mbokk yi mënul am mukk gannaaw ndimbalu yàlla te jullit yi bokkuñu ci maanaam jàppalewuñu ku ci bëgg a jàpp na dem ci ICFA online dot com slash donate ICFA online dot com slash donate wala ngeen dem ci paypal dot me slash ikfa paypal dot me slash ikfa wala ngeen yónnee seen ndimbal ci 100 maanaam ci PO box bi 100222 Staten Island New York 10310 wala ci adresse bu jàkk ji nga xam ne tudd nañ ko mën ngeen ñëw woo ci 718 448 52 52 347 596 20 36 ICFA ubbil na buntam képp koy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum الورى وأنت الذي أولاك مولاك Avez-vous une assurance médicale Avez-vous besoin d'un médecin Savez-vous où aller Courez-vous le risque de contracter l'infection du VIH ou les hépatites B et C Les maladies ne présentent pas toujours de symptômes. Laissez African Services vous aider. African Services Committee offre des tests gratuits et confidentiels pour le VIH, l'hépatite virale, le diabète, la tension artérielle et les maladies sexuellement transmissibles. On peut vous aider à trouver des soins médicaux à bas prix sans tenir compte de votre statut d'immigration. African Services est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30 au 429 Ouest 127 Street à Harlem. Peu importe votre statut d'immigrant ou votre solvabilité, vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous. Nous parlons français, anglais et la plupart des langues africaines. Pour votre bien-être et celui de votre famille, venez faire votre test. Ayez la conscience tranquille. Appelez le 212 222 38 82 ou visitez notre page internet www.africanservices.org pour plus d'informations.
Hey, what's up, what's up? Hope you're doing well.
حمامة وادي الدوي ويلك ما لك فقد اشتريتك على اجل العواتك حمامة وادي الدوي ويلك ما لك فقد اشتريتك
tabarakallahu ñi dellu si beneen yoon xanaa yi continuer waxtaan wi ñu tàmbali woon waxtaan wu aju woon ci wàllu jëf ndax ñu ngi jógee ci jëf muy jëfi koor mu jeexee rek weeri xaj dugg na mel ni xikma bi sayidi ibn ataillahi sakandari ubbee téereem boobu nga xam ne Cheikh Seydi Ahmed Tijaani radiyallahu taala anhu wa anna bihi amin dana wax ne su fekkoon ne dana am téere bu dagana julle budul alquran nee na téere ibn ataillahi bi lay doon muy kitaabul xikam Cheikh Tijaani bokk na ci téere yu nga xam ne diiru dundam da leen daan jàngale téere bu mu fonk la woon kitaabul xikam mu mel ni mooy mooy suñu ganu suñu ganu tey alxikamul ataaiya ñu fas yéene jàngandoo ak yéen xikmatu bu njëkk bi nee na min calaamati lictimaadi cala alcamali nuqsaanu rajaai cinda wujudi zalali من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل من علامة الاعتماد bokk na ci màndargay sukkandiku على العمل ci jëf نقصان الرجاء yaakaar gu wàññiku inda zalal bu tarxiis amee lenn soo tarxiisee tax nga ñàkk yaakaar ci yàlla màndarga la ci ne yaakaaroo woon yàlla sa jëf nga yaakaar min alaamati lictimaadi ala alamali nuqsaanu raja inda wujudi zalal alallaama alcaarifu billahi bind ci commentaire bu day ne ñëy tuddee ko iqaadul himam fi fi sharci fi sharxi lxikam iqaadul himam yiyee yitte yi yitte baat la bu Cheikh Sidi Ahmad Tijaani radiallahu anhu fonkoon baatu yitte daan na daan na baamtu baytu ba ñu taggee yonent bi ci yitte lahu himamun la muntahan li kibaariha wa himmatuhu sugra ajallu min addahar daan na ko baamtu lu bari Cheikh Seydi Ahmad Tijaani daan na wax ne himmatul insaani qaahiratul akwaan nee na doomu aadama moo xamul na mu toll waaye bu yitteem àggoon ci joti la ca gannaaw arash dana te jot ndax yitteem not na univers yi yi ñu mën a gis ak yi ñu mënta gisee bët wax sirrul xilaafati doomu aadama li yàlla def ci moom kenn mënu ko tudd kenn moo tax catastrophe bu nekk xew na fi waaye terewul mu baleen fi rek ndax am na lu tax xam nga nit yi dañu foog ne tey la àdduna gën a naqadi ne tey la àdduna gën a neex tey la àdduna ëpp jàmm ma wax leen ko dañu xool statistiques yi tey ji la àdduna ëpp jàmm c'est que information moo tasaaroo rek waaye maas gi ñu weesu li ci dee ci ay centaine de millions loolu maara day taali bindkat yi bind nañ ko defe naa Farid Zakaria bu GPS def na ci benn gëstu bu am solo def na ci gëstu bu am solo waaw def ci it waxtaan ca université bu mag ba nu mu tuddati ba nekk ca Massachusetts am na ci waxtaan te wax na dëgg waaye ñu dellu ci bind bi min alaamati lictimaadi ala alamal nuqsaanu rajaa inda wujudi zalal ibn ajiba mu ne lictimaadu ala shay huwa lisinaadu alayhi wa rukunu ilayhi nee na sukkandiku ci dara mooy wéeru ca ak jëng jëm ca mu ne amal mooy xarakatul jismi aw il qalb nee na amal mooy yëngatu bu yaram di yëngatu wala bu xol di yëngatu fa in taxaraka bi maa yuwaafiqu sharia summiya taaca su xol wala yaram yëngatoo ci lu dëppoog sharia ñu tuddee ko topp wa in taxaaraka bi ma wa in taxaraka bi maa yuxaalifu sharia summiya maasiya su wuuteeg shariatu ñu tuddee yëngatu ba mooy mu ne wal acmaalu cinda ahli lfanni ala thalathati aqsaam nee na amal yi nag jëf yi ci ñooñ fànn gi mooy ci ñooñ tasawuf waaw ci ñooñ tasawuf xam-xam bu mët a sonne la xam-xam bu mët a sonne la bu mët a sonne waaw xaw ma sax ku ko sonnewul looy sonne yàlla nañ ci yàlla boole ci ñooñ fànn bi nee na ala thalathati aqsaam jëf ci ñooñ tasawuf nee na ñetti xaaj la amalu shariati wa amalu tariqati wa amalu lxaqiqa wala nga ne amalul islaami wa amalul imaani wa amalul ixsaan wala nga ne amalul cibaadati wa amalul ubudiyati wa amalul ubuda ay alxurriya baat bu bu cibaaratu ubuda bu siiwee ci Cheikh Tidiane la itam radiallahu anhu waa nee na jëf ci ñooñ tasawuf ñett la jëfi sharia ak jëfi tariqa ak jëfi xaqiqa wala nga ne jëfi lislaam ak jëfi liimaan ak jëfi lixsaan wala nga ne jëfi ibaadatu ak jëfi ubudiyatu ak jëfi ubudatu wala nga ne amalu ahlil bidaayati jëfi ñooñ tàmbali wa amali ahlil wasat ak jëfi ñi ci digg bi wa amali ahlil nihaaya ak jëfi ñooñ dayta e ca mujj ga wala wala wala wala nee na fa shariatu an taabudahu sharia mooy nga jaamu ko moom yàlla wa tariqatu tariqa nag an taqsidahu mooy nga jublu yàlla wal xaqiqatu an tashhadahu mooy nga seedu yàlla mu delluwaat ca laa ilaha illa allah laa ilaha illa huwa laa ilaha illa allah laa ilaha illa anta laa ilaha illa allah laa ilaha illa ana laa ilaha illa huwa ay laa maabuda bi xaqin siwa laa ilaha illa anta ay laa maqsuuda bi xaqin siwa laa ilaha illa ana ay laa mawjuda bi xaqin siwa mu ne walla nga ne ashariatu li islaaxi dawaahir sharia fay xéwénal biti yi wa tariqatu li islaaxi damair tariqa day xéwénal biir yi wal xaqiqatu li islaaxi sarair xaqiqa nag dafay xéwénal mbóot yi te mooy ruux wa islaaxul jawaarixi mu ne bi halaatati umuur cër yi ñett leen di xéwénal bi tawbati wa taqwa wal istiqaama tuub ragal yàlla ak jub nee na xol yi nag ñett leen di xéwénal lixlaas muy sincérité dëggu ak tumaninatu lixlaas mooy li ngay def yàlla rekk tax dëggu ak tumaninatu yii yëpp bu ci nekk mat na waxtaan waaye ñu tënk rek wa islaaxu alqulubi bi thalathati umur lixlaas wa sidq wa tumanina wa islaaxu sarair dana yewenal mbóoti nag bi thalathati umur bil muraqaba bil mushahada bil maarifa muraqaba mooy fuglu yàlla mushahada mooy seedu ko maarifatu mooy xam ko yal nañu ko yàlla defal mu ne wala nga ne islaaxu dawaahir yi باجتناب النواهي وامتثال الأوامر ظاهر yi teet tere yi ak topp ndigal yee koy xéwénal biir yi taxliya min adrahail yi ñàkk fayda yépp nga fóotu ci wa taxliya bi anwaa il fadail yi am fayda yépp nga sol ko muy mbubu wa islaaxu sarair nag wa hiya huna al arwaax badluha wa inkisaaruha xata tatahadaba wa tartaada al adab wa tawaadu wa xusn al xuluq mbooti nag tey mooy ruux yi nuñ koy xéewanalee mooy yulli leen ak dammu leen ba ñu sell te tàggatu ci adab ci toroxlu ci baax jikko mu ne waalam xamal ne ann alkalaama huna innama huwa fi l acmaali allati tujibu tasfiyata aljawaarix aw alqulub aw al arwaax wa hiya ma taqaddama tacyinuha li kulli qism amal fii ñu ngi ci jublu yi nga xam ne dafa sellal cër yi sellal xol yi sellal ruux yi niñ ko seddalee léegi mu ne waaye ulum yeeg maarif yi ñoom samaraat lañ ay meññet lañ samaraatu tasfiya wa tathir su mbóot yi sellee rek mooy ruux yi xam-xamu borom bi yegg si fa ida tataharat al israaru muli at bil ulumi wal maarifi wal anwaar mu ne wala yasixu lintiqaalu ila maqaamin xatta yuxaqiqa ma qablahu faman ashraqat aw xatta yuxaqaqa ma qablahu faman ashraqat bidayatuhu ashraqat nihayatuhu ne boo bëggee am réussir nag réussite ci yoonu yàlla nee na dooyee verser rôle yi balaa nga tëb maqaama fokk nga goreel ko soog a dem ca ba ca des maanaam amalu tariqa kenn du ca dem te fekk jeexaluñu amalu sharia ba cër yee tàggatu ca ni nga koy jeexale mooy nga jeexale ko tawba ànd ak sharta ya taqwa ànd ak ponk ya listiqaama ak xaajam xaaja mu ne mooy mutaabaatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi aqwaalihi wa afaalihi wa axwaalihi topp yonantu sallallahu alayhi wa sallam ci ay waxam ci ay jëfam ci ay xaalam nee na fa ida fa ida tazakkar zaahiru bu zaahir ba sellee wa tanawara bi shariati tam leer ci sharia intaqala min amali sharia bu ko defee nag borom mën na jóge ci amalu sharia alzahira ila amali tariqa albatina wa hiya tasfiya min awsaafi albasharia mooy fexe ba dindeeku ci meloo nit yi waaw meloo nit yi jéem a meloo jéem a meloo meloo yàlla yu baax yi tabaraka wa taala te meloom yëpp baax sell subhanahu wa taala nee na su génnee ci meloo bashariyatu rek daal di meloo taxalla bi awsaafi ruxaniya wa hiya al adabu maa allahi mooy am teggi nag yàlla ci ay tajalliyaatam bu ko defee nag cër yi dootuñu sonnati boobaa xusnul adab rek a fiy des neena loolay loolu ci ngay déggee la kenn ci muxaqiqin yi wax man balaga ila xaqiqati lislaami lam yaqdir an yaftari alal amal nee na ku jot xaqiqatu lislaam dootul mën a baati jëf waaye ku jot xaqiqatu liimaan dootul gestooti jëf dootul defoot gestooti jëf ndax fa mu nekk tax yàlla nee na ku jot nag xaqiqa ah xaqiqatu lixsaan ku ca yegg nee na dootul gestooti jëm ci ludut yàlla tabaraka wa taala du doon moo xam jëf la moo xam leneen la mu ne nag wala yactamidu almuridu fi suluki hadihi almaqamati ala nafsihi wala ala amalihi wala ala xawlihi wa quwatihi waaw nee na murid bi nag du sukkandiku mukk ci sóobu gi muy sóobu maqaam ci maqaama yi ci boppam bu mu gis boppam bu mu gis jëfam bu mu gis pexeem bu mu gis kàttanam ndax amu ca benn na sukkandiku ci ngëneelu boromam ak ci tawfiqam ak ci njubalam ak dëgëralam subhanahu wa taala xam ne borom bee ko tànn pour loolu waaye du pexey boppam وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار walaw shaa rabbuka maa faalu bu neexoon borom bi du ngeen ko mën a def duñ ko mën a def walaw shaa rabbuka la jaala annaas ummatan waxida wala yazaaluuna muxtalifina illa man raxima rabb kon nag mu dàq jëfam du ko gis gis yërmande yàlla mu dellu ci la yonantu bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam lan yadxul ahadukum aljannata bi amali kenn ci yéen du duggee aljanna jëfam ba ci yow yow yonantu mu ne ba ci man illa an yataxammadani llahu bi rahmati xanaa yàlla mbadee ma yërmandeem waaw taxammad yàlla mu ree ma yërmandeem bu ko defee boo sukkandikuwul ci sa jëf soo juumee te juum ci ñooñ yàlla bokkut ak juum ci ñooñ àdduna bët bët wala nga tarxiis du tax nga ñàkk yaakaar ci borom bi parce que ñàkk yaakaar bi nga juumee nee na dafay wane ne ci sa jëf nga sukkandiku te jëf te waruloo sukkandiku ci sa jëf ibnu ajiba mu ne fal ictimaadu ala nufuusi min alaamati shaqaai wal buus ne sukkandiku ci jëf màndargaam texee di la ak wañ su waa sukkandiku ci bakkan yi waaw nee na mandargaam texee di la ak wañsu nee na sukkandiku ci jëf nag min adami taxaquqi bi zawal min adami taxaquqi bi zawal waaw da nga amul kóolute ci zawal ci dëñ wal ictimaadu ala alkaramati wal axwaali min adami soxbati rijal nee na koo gis mu sukkandiku ci karaama yi ko yàllay wan ak axwaali yi mu yëg ci boppam nee na xamal ne àndut ak sëriñ bu mat sëriñ àndut ak sëriñ bu mat sëriñ waaye sukkandiku ci yàlla nag min taxaquqil maarifati billahi ne kooku ku yegg ci maqaama taxaquqil maarifa mooy sukkandiku ci boromam yàlla nañ ci yàlla boole nee na lii wane na nag jaam bi ci yàlla la sukkandiku mooy laa yanqusu rajauhu ida waqaa fi lisyaan su juumee du tax yaakaaram yàqu du tax yaakaaram wàññeeku ci yàlla wala yazidu rajauhu ida sadara minhu ixsaan su baaxalee du tax yaakaaram yokk wala nga ne laa yadumu xawfuhu ida sadarat minhu gafla kama laa yazidu rajauhu ida waqaat minhu yaqada càggante du réyal du yokk ragalam waaye xeew bay jëf mbaax du yokk yaakaaram maanaam qad istawa xawfuhu wa rajaauhu ala dawaam ragalam ak yaakaaram dafa nekk ci équilibre bu mët en permanence li anna xawfahu naashiun an shuhudil jalal ndax seedu màggug yàlla tax mu mu ragal wa rajaauhu naashiun an shuhudil jamal seedu taaru yàlla moo tax mu yaakaar te nag wa jalaalul xaq wa jamaaluhu laa yataxayaraani bi ziyaadatin wala nuqsaan fa kada maa yanshau anhuma te sama borom tabaraka wa taala màggaayam ak taaram duñ soppeeku cig yokk wala cig wàññeeku kon nag lu sosoo ci ñoom du so du soppeeku ci wàññeeku wala ci yokk su fekkee ne seedu màggaayu yàlla tax nga ragal yàlla yàlla màggaayam du soppeeku kon sag ragal du soppeeku su fekkee seedu taarama tax nga yaakaar ko taaram du soppeeku kon nag njuumte waru ko soppi njuumte waru ko soppi baaxalit waru ko yokk mu ne bi xilaafi almuctamidi ala al amal wuuteeg nag ki sukkandiku ci jëfam ida qalla amaluhu qalla rajaauhu nee na kookee de su jëfam néewee rek yaakaar ab néew wa ida kathura amaluhu kathura rajaauhu su jëfam bëree yaakaaram bëri lu tax li shirkihi maa rabbihi parce que ci maqaamu shirk la nekk wa taxaquqihi bi jaalihi est-ce que ma nga boolee yàlla ak leneen ndax jël na jëfam xaat def yàlla ndax mu ngi ca sukkandiku mu ne walaw faniyas su jeexoon an nafsihi ci boppam wa baqiya tam des bi rabbi ak boromam li sarax su fekkoon ne dafa jeex ci boppam des ci boromam ndax fokk pour nga des billahi la budda an tafniya an siwallahi tabaraka wa taala amma siwallahi tabaraka nee na su jeexoon ci boppam des ci boromam la sarax kon mu noppaliku min taabihi wa taxaqaqa bi maarifati rabbihi konoon mu noppaliku ci coonoom te taxaq def taxaquq ci xam borom moom tabaraka wa taala mu ne nag wala budda min cheikhin kaamilin yuxrijuka min taabi nafsika ila raxatika bi shuhudi rabbika nee na lii nag kenn du ca yeggal boppam fokk nga am cheikh kaamil bu lay génnee ci sa coonay bopp yóbbu la ci sa noflaayu seedu sa borom tabaraka wa taala nit ak boppam ci coono rekk la dëkk waaye nit ak boromam ci noflaay rek la nekk mu ne fa cheikhul kaamilu sëriñ bu mat huwa alladi mooy sëriñ bi nga xam ne yurixuka moo laa noppal min a taabi ci toona lalladi yadulluka ala taabi du ki lay tegtal coono mu ne man dallaka ala al amali ku la wan sa jëf rek faqad ataabaka sonal na la wa man dallaka ala dunya ku la wan adduna faqad xachaka wor na la wa man dallaka ala allahi ku la wan yàlla nag faqad nasaxaka laa ku la wan yoonu jëf sonal na la ku la tegtal àdduna wor na la ku la tegtal yàlla nee na ko rekk la laaye biir ni ko ni ibn mishis nee na rahmatullah alayhi waxee wa dalalatu ala allahi hiya dalalatu ala nisyaani nafs nee na wan nit borom bi nag tegtal la yàlla mooy tegtal la nga fàtte sa bopp ndax boo fàtte sa bopp rek fàttaliku yàlla bi dalili qawlihi taala wadkur rabbaka tuddal sa borom fàttalikul sa borom ida nasita soo fàttee gis nga soo fàttee ay boo fàttee lu dul yàlla rek nee na sa borom rek ay teew ci yow subhanahu wa taala wala nga teew ci sa borom de moom Mustapha tu nee na wa sababu taabu coono moom foo ko déggee rek sababam huwa dikru nafsi wal itinaau bi shuuniha wa xuduudiha tudd gi ngay tudd sa bakkan ak sonne gi ngay sonnee sa mbiru bakkan ak i bëgg-bëggam nee na moo moo sonal ñëpp wa amma man gaaba anha fa laa yalqaa illa raxa waaye ku fàdd walis bakkanam du dajeeg lu dul coono du dajeeg lu dul noflaay mu ne ci ngay déggee nag laqad xalaqna linsaana fi kabarin ay fi taabin fa huwa xaasun bi alil xijaab ñoo bind doomu aadama ci coono nee na ñu borom xijaab yee moom boobu wala nga ne xaasun bi axyaa in nufuus ñi nga xam ne bakkan la ñuy dundee wa amma man maat faqad qaala taala fiihi fa amma in kaana min almuqarrabina fa rawxun wa rayxaanun wa jannatu naim nee na ñi dee ci seen bakkan moom yàlla nee na ñi nga xam ne bokk na bu ñi bokk ci ñi jegeel ñi ñu ngi ci rawx ñu ngi ci rayxaan ñu ngi ci jannatu naim ay ñu ngi ci rawxul wisaali jokkoog yàlla ak rayxaanul jamaali ak jannatul kamaali yàlla nee na ñooñu moom laa yamassuhum fiha nasab ñooñu moom coono du leen fa am ndax ku nekk aljanna doo am coono te aljanna nag aljanaay xam yàlla la moo ca gën a nekk moo ci moo gën di aljanna waaye noflaay googu nag fokk nga jaaree ci jëf jaaree ci coono ba tabaarakallaahu àgg ca ndax xufatil jannatu bil makaari ngay jéem rek ngay jéem rek ànd ak sëriñ bu mat sëriñ asxaabu cheikhina arif almasali yaqiyi fi tariqihi almahali ma axwajana ilay ayuha ayuha alaachiqu ayuha alaachiqu maana xusnina mahruna gaalin liman yaxtubuna yow mi wut suñu maanaay taar suñu can dafa seer ci ku ñuy labat jasadun mudni wa ruuxun bi laana wa jufuunu laa taduqul wasan yaram wu feebar ruux gu nekk ci coono ak mbëti bët yoo xam ne duñ mus mukk nelaw wa fuwaadun laysa fiihi xayruna xol boo xam ne ku dul ñun newu ca wa ida ma chita soo bëggee nag addi thamana njëg laa ngi joxe ko faf na in chita fana an sarmadan fal fana yudni ila daka lfana ila daka lfina su la soo soo bëggee yegg ca dingare boobu jeexal jeex goo xam ne jeexu dappet la waxla'in na'lay nga summi ñaari dàlle in ji'ta ila halika alxayi fa fiihi qad sana foofu dàll amu fa waaw dàll nag jublu ci dàll yi le waaw sa dàll yi foog gi nga foog ni am nga ak sa dàlli waaw rëy geeg sa dàlli sa dàlli wa anil kawnayni kun munxali'an waaw waaw dàlli àdduna ak àllaaxira yépp summi leen wa azil ma baynana min baynina wa azil ma baynana man baynana waaw wa ida qila man tahwa fa qul ana man ahwa wa man ahwa ana nee na ci xallu rumuuz nag mu ne huma alam annaka laa tasi laa tasilu ila manazili alqurubaat xata taqtaa saqa sita aqabaat nee na xamal ne doo yegg mukk ci manazilu jege yàlla lu dul nga dagg juróom-benni aqaba aqaba bu njëkk bi mooy nga feral cër yi anil muxaalafaati charia ci lépp loo xam ne dafa wuutee charia ñaareel bi nga feral bakkan bi anil malufaati al aadiya ci yi miin ci wàllu aada ñetteel bi nga feral xol bi anil ruunaati al basharini bashariya ci feebar yi nga xam ne feebar yi mbindeef la muy feebar yi xol ñeenteel bi nga feral bakkan bi anil kuduraati tabiiya ci nëx-nëxi nature bi nee na juróomeel bi nga feral ruux gi anil bu xóoraatil xisiya ci cuuraayu yëkk wala yi ko jóg yëg nee na juróom-benneel bi nga feral xel mi anil xayaalaatil wahmiya ci jenneer yi yi nga xam ne ko jóg def defle la nee na bu ko defee aqaba bu njëkk ba boo ko jéggee ci ngay amee yanaa beewal xikamil qalbiya ci la xikam xal bi xol bi di ballee aqaba ñaareel bi boo ko jéggee ci ngay amee nee na asraarul ulumi la duniya aqaba ñetteel ba ci ngay amee alaamul munajaatil malakutiya aqaba ñeenteel ba ci ngay amee anwaarul munazilaat al qurbiya munazil waaw dégg nga bu juróomeel bi ci ngay amee nee na anwaarul mushaahadaatil al xubbiya nee na juróom-benneel ba ca ngay suppeekoo ca ngay ca ngay amee li ñuy tuddee a riyad alxadara alqudsiya ca nga ca nga fay wàcce jardin wu divine presence the holy divine presence wallah subhanahu wa taala nee na nag foofu nag ci ngay fàddoo ci lépp loo doon seedu min al lataif al unsiya an al kahaif min al lataif al kunsi an al kahaif al xithiya mu ne yàlla nag su la nammee ci xusuusiyatul istifaayam mu nàndal la ci kaasu mahabbatam shurbatan tasdaadu bi tilka shurbati dhamaan wa bi dhawqi shawq wa bi dhawqi shawqan wa bil qurbi talaban wa bi sukri qalaqan nee na kaasu cofeel goo xam ne loo ca naan gën a mar loo ca mos gën a namm loo ca jege gën a sàkku loo ca màndi gën a waaw bëgg pour tëj nag ñu tëjee nee na lii sama borom wax tabaraka wa taala ne dugg leen aljanna ci sababi li ngeen doon jëf te yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne kenn ci yéen du duggee aljanna jëfam lu dul xanaa yàlla yërëm ko mu ne xamal la nag sunna ak téere alquran dafa nekk sharia ga xaqiqa wala nga ne bayna tashric wa taxqiq léeg-léeg sharia alquran shariaal dara ba pare te xaqiqaal ko feneen wala sunna ñëw xaqiqaal ko wala sunna shariaal dara xaqiqaal ko feneen wala alquran ñëw xaqiqaal ko dena loolu yaa ngi koy gis ci waxi borom bi mu ne yonantu wa anzalna ilayka dhikra li tubayina linnaasi ma nuzila moo tax udxulul jannata bi ma kuntum taamaloona tashric la lan yadxula ahadukum aljanna bi amalihi taxqiq la ni ki nga xamee ne wa ma tashaawoona illa an yasha allahu taxqiq la boo ko comparé waxi yonantu jim ne ida hamma ahadukum bi xasanatin kutiba lahu xasana kooku tashric la ma nga wane ne nit a ngay jog di def waaye fële yàlla ngay wax ne yàlla rek lay soob mu mën a def kon itlaaqu alquran sunna daf koy qaydu ni nga xamee ne sunna yi dana xaydu sunna alquran yi dana xaydu alquran dana xaydu sunna Eh, wala nga ne sama borom tabaraka wa taala ba mu woowee jaami ci taatu ak tawxid ci tawxid ak taa waaye seen eh, state tax na fokk mu defal leen luñ xemmam ci seen kanam mu won leen aljannaak yañu xemmam bima kuntum taamaloon waaye ba seen ndëgu saxee ci lislaam nag yonentu sallallahu alayhi wa sallam génnee leen ci xemmem yooyu le yóbbu leen ci ixlaasul ubudiyati wa taxaquq bi maqaabil ixlaas wax leen ne lan yadxula ahadukumul jannata bi amalihi boo defee danga ko gisati ci beneen anam mooy sama borom bu yóbboo jaami aljanna ne leen lii mi ngi ngeen ko amee ci sababi seen jëf yi dana tolloog ci zahir gan gu ñëw sa kër dégg nga nga tegal ko ndab bi mu yéexamtu nga naan lekkal yaa ko moom lekkal yaa ko moom lekkal yaa ko moom te pourtant yow mi koy wax yaa ko moom yow la yaa ko moom waaye danga bañ mu yëg ne yëfi keneen la loolooy tax yu mët a bàyyi xel la ci jaam bi buy jàng alquran ak buy jàng sunna mu xam fa muy defee lintiqaal min amali zahir ila amali batin buy jëf tamit mu xam fa muy defee lintiqaal min amali zahir ila amali batin ba defee yooyu la borom téere bi ci gàttal wax ci wàllu jëf maanaa jàmm bi jëfam lu mu bari bari bu mu foog ne def na dara na xool yàlla na ko seedu rek bu tarxiisee it bu mu tax mu ñàkk yaakaar ndax yàlla rek a fi nekk tabaraka wa taala kullu bani bani aadama xataa'un wa xayrul xataa'ina tawaabuun tabarakallahu waxtu waa ngi avancé xam naa su fekkee ne dana am ñu dugg incha allah dinañ leen jël gannaaw bu ñu jàllale yu ñu bëgg a jàllale su ci waxtu wi su xat su ci xajee ci deux cent deux cent douze deux cent dix neuf quatre vingt seize quatre vingt quinze deux cent douze deux cent dix neuf quatre vingt seize quatre vingt quinze two one two two one nine nine six nine five waaye ñu baal ñu rek ñu am yu ñu jàllale su fekkee ne waxtu wi maye na ko incha allah ñu dugg ci du dëgg
سلام عليه من خديم متيم يبشر من كل حال Êtes-vous un immigré Avez-vous une assurance médicale Avez-vous besoin d'un médecin Savez-vous où aller Courez-vous le risque de contracter l'infection du VIH ou les hépatites B et C Les maladies ne présentent pas toujours de symptômes. Laissez African Services vous aider. African Services Comedy offre des tests gratuits et confidentiels pour le VIH, l'hépatite virale, le diabète, la tension artérielle et les maladies sexuellement transmissibles. On peut vous aider à trouver des soins médicaux à bas prix sans tenir compte de votre statut d'immigration. African Services est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30 au 429 Ouest 127 Street à Harlem. Peu importe votre statut d'immigrant ou votre solvabilité, vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous. Nous parlons français, anglais et la plupart des langues africaines. Pour votre bien-être et celui de votre famille, venez faire votre test. Ayez la conscience tranquille. Appelez le 212 222 38 82 ou visitez notre page internet www.africanservices.org pour plus d'informations.
يا رسول الله يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان
tabarakallahu am nañu fiit annonce bu jógee ci ICFA Institute jóge ci jàkka ji mooy programme serma serma camp bi ñuy wane yëg la ne dina ubbi incha allahu le 8 juillet bismillahi tabaraka wa taala ba le 15 july 8th ba august 15 bismillahi tabaraka wa taala ñi nga xam ne bëgg nañu register ñu woote ci 347 596 2036 347 596 2036 wala 347 336 7030 347 336 7030 incha allah samedi bi dina am orienta orientation ci wàllu programme bi ni muy demee waaye ci biir semaine bi yëpp ku ñëw ca jàkka ja wala nga woote ci numéro yooyu daa mën a register sa njaboot damay wax toujours nag ni ñu sàgganee ba ci année scolaire yi li ñu war ci xale yi di leen jàngal alxuraan bés bu set mënuñu ko li waroon mooy ñu jàngal leen ba ñu mokkal ñu soog leen dugal ci leneen su fekkee mënuñu loolu bés bu ne war nañ leen yóbbu ci école yi ñuy def after school programme bu jëm ci wàllu alxuraan ak wàllu diine luñ ca def boole kook weekend yi bu vacances yi jeexee bu vacances yi dikkee amuñu récompense amul récompense buñ leen mën a jox bu ëpp ñu dugal leen ci kemp yi nga xam ne dañ fay jàngee diine di fa jàng alquran di fa jàng lislaam ak luxal arabiya mënoo leen a yóbbu voyage nay Sénégal nay tugal nay fumu fumu sa responsabilité la yow parent bi nga dugal leen fuñ jàngee diine te boo ko deful ëllëg daa ko layoog ñoom kon nag ñi nga xam ne ñu ngi dëkkee Staten Island yëpp ñu ngi leen ciy woo ñi dëkkee feneen it ah tabarkal la mën nañ ko defee feneen waaye programme bi ñu ngi ciy woo ñi nga xam ne intéressé wu nañ ci yëpp am nañu sax ñu jógee Sénégal